maa leen sant leen gërëm di leen na li may xaar ci moom daanaka bariwul am naa yaakaar ci moom wóolu naa ko ni ko kilifa yi ci kaw wóoloo ndax moom du fi doon ku bees du fi gan maanaam xam na maanaam boîte bi nu muy fonctionné nu mu def xam na ko donc euh, am nañ yaakaar bu baax a baax ni maam li ñu xaar ci moom dina ko def li ñu xaar ci moom mooy fexe ba maanaam euh, gën a yokk maanaam kaaraange gi jëmale ko ci askan wi te loolu. mën na ko te laaj na jumtukaay te jumtukaay yooyu également dañu ko yokk incha allah fii at at jeex jumtukaay dinañ teew ndax euh, dina tax bu boobaa li naan daan jëlee di tibb maanaam Dakar yóbbu yeneen région wala tibb Thiès yóbbu yeneen région yi bu ñu ubbee maanaam groupement opérationnel euh, Saint-Louis euh, Kaolack ak Tambacounda boobu maanaam seen seen dem seen jog bëxër ña dem mooy gën a yomb que maanaam ñu xaar ñu ñëw ñu jógee feneen di ñëw. léegi maanaam ku nekk tàmba Tamba mën na réglé nekk bi Tamba ñu nekk Kaolack ñu nekk Kaolack mën donc mënuñu ko réglé ñu nekk Saint-Louis aussi mënuñu réglé maanaam Saint-Louis ba Matam mooy bu ñu leen bu ñuy aar euh, askan wi askan wi moo ci jëkk dugal loxoom du mu ni ndimbal lañ ci fekk loxol borom ndax ñun loolu moo ñu tax a jóg nag bu ñu la jàppale il faut nga jàpp ci leneen ñu laaj mooy nañ fexe maanaam ba ja lëkkaloog maanaam alkaati fekk maanaam bépp lu ñu saa yu ñu gis loo xam ne lii tegul si yoon jaarul si yoon euh, ñu mën ko mën ñu mën ko jéebaane ndax kat alkaat yi du ñuy jinne du ñuy waliyu du ñuy bu zaman nit lañu ñu comme ñëpp liggéey bu ñuy liggéey ci xibaar lañ ko lañ koy lañ koy sukkandiku te xibaar yooyu maanaam ci nit ñi lay jóge amuñu xarañ bu toll na maanaam ni américains yi am wala ñeneen ba maanaam nga mën a kii euh, nga mën a def li ñu tuddee renseignement technologique te la renseignement technologique gis nañu ses ndax ku fàttaliku 11 septembre renseignement technologie lañ lañ gënoon euh, moo gënoon soxal ñooñu moo tax tey loolu loolu am moo tax mujj gi dañoo dellusiwaat ñëw ci ñun suñu mënin suñu mënin ñun mooy renseignement humain renseignement humain mooy maanaam askan wi seen bopp ñoo ci war dugal seen loxo bu ñu gisul loo xam ne ni jaarul jëmul kër ñu mën ko wax teel ndax fagaru moo gën faju déjà waaw xam nga ñàkk xam lu mu waral bari na ñun ak waa ak gendarme ay doomi ndey la ñu ñoo bokk réew mi boo ñëwee si benn kër da nga fa fekk alkaati fekk fa gendarme fekk fa douanier fekk fa leneen ak leneen su fekkee maanaam ci biir kër yooyu doon du ñu xuloo du ñu xiiroo du ñu ŋaayoo lu tax manaam bu ñu bu ñu wàccee ci toolu euh, toolu ci waar bi war a xuloo war a ŋaayoo donc loolu maanaam amu fi léegi li ñu bëgg a def li ma tax jóg la mooy na fexe ba. maanaam suñu diggante ak alkaati yi euh, soxna suñu diggante ak gendarmerie suñu diggante ak militaire suñu diggante force défense et de sécurité en général maanaam mu tax bareet ndax ci loolu mooy tax maanaam suñu liggéey mën a jëm kanam. ni woon nga tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, waa police na mu yombalal ñi nga xam ne ñooy euh, population bi seen waxtaan seen diggante waaw ci loolu mooy maanaam damay bamtuwaat rek nii ñun boo ñu tëkkalee ak armée ñun maanaam ñi ñuy ñi ñuy jox joxalante du ñu ay suñu ay noon militaires yi ñoom bu ñu demee ci théâtre d'opération ay noonu lu ñu am am na jumtukaay yoo xam maanaam mën nañ ko jëfandikoo mën nañu rey mën nañu gaañ mën nañu jàpp gi ñun nag ñi wax ñun nag ñi nga xam ne moom la ñu daa jàmmarloo du ñu suñu ay suñu ay noonu maanaam dañoo réer ndax ñàkk duma ma ne ñàkk xam de déedéet nag ñàkk ñàkk waxtaan boo waxtaanee ñoom du ñu def ay nit lañu xam nañ lu jaadu ak lu jaadul boo waxtaanee ñoom xamal leen ni lii moo jaaru lii mën nga ko lii mën leen ko def bu ngeen war a def lii fii ngeen war a jaar fii ngeen war a jaar fii ngeen war a jaar waaw dañuy xam exactement lan mooy seen wareef lan mooy seen cir te comme nit lañ nag bu ñu seetaat baax li leen xam ne muy mu jaaru leen yoon lépp lu ñu bay jàppoon dinañ ko bàyyi su fekkee maanaam defar moo leen tax jóg parce que ñaxtu am na ndax mi ngi ci biir constitution bi ku am loolu métti mën nga ko ñaxtu mais dañu la yoon bi nga war a jaar pour ñaxtu mënoo ñëw xëy xëy rek ni bëri rek def lu la neex parce que ndax mbedd mi nag moom ñëpp ko bokk te mbedd mi bu ñu mbedd buur la buur <laughs> ñëpp la donc bul jël sa cër bëgg a jël cëru cëru jàmbur jël sa cër rek bàyyi ñu seen cër waaw li ñu boon ni ñëpp bokk nag na ko séddoog ñëpp. merci beaucoup